léegi ma lay laaj sa digganteeg mbër mi nga xamante ne ni saa bu ngemboo di dem stade di di bëre ji yow yaa koy gunge yaa koy tuusal ba nga ama moom wala ay mbokk ngeen wala da nga nekk géwélam kan mbër bi <laughs> loolu dama si sawar a wax bu baax a baax a baax saa yaa ngi doog a laal mm. kooku daa bokk si man mm-hmm. man maay moom moom mooy man mm-hmm. kooku man jamono mooy jàng tëgg da doon bëre mbapat ñi ànd muy bëre mbapat bu waree tuus mu nekk tëkkat bu ne bu kenn tëgg kii moom mooy tëggal jël ma teg ma doon lu ndaw moomu njëkk yóbbu 2S sama àdduna Bécaye Mbaye ma njëkkee wane télé. Mhm. Bécaye Mbaye naan xale bi kal la kii fu mu jugee Zarko ne ko xale bi mooy toji réew mi ëllëg bilaay. Mhm. moomu njëkk yóbbu télé Zarko di ko remercier bu baax sama xarit bi di ko ñaanal combat bi la kat yàlla ko yàlla suñu borom may ndam mhm. waaw mu doon góor gu dëgër doon jàmbaar. bëgg ma c'est que nit ki balaa nga koy xam nga nekk moom wala nga toog ak moom wala nga koy fréquenté ngay xam baaxaayam ak ku mu doon. Mhm. mais noonu ay Fall. kooku moom Sarko Sarko Baye Fall lañu noonu barke Serigne Touba. mais dañoo benn benn bu doy waar bu am sa diggante ak moom. Mhm. comme moom des fois ni suy bëree. Mhm. yi muy yor. xamali ma wax ba ci gàllaaj yi. da lay ay gàllaaj di la sotte ay saafara. ndax yooyu say saafara la wala boog yéen ñaar fam am loo leen bokk loo xam ne war ngeen a mën a bokk saafara. loolu loolu loolu moom moom man sama aar moom mooy aar saa yu bëree moom mooy aar mooy sama lépp ah. waaw man ni ma mel si moom ñu mu bokk ak ndey ak baayam sax ñu bokk ak ndey ak baay sax si moom. Zarko ñooy toog chaque jour ñooy coobandoo ñooy demandoo entraînement ñooy defandoo lépp fu muy dem man ak moom mooy dawal maay toog si wetam ba fii jëm du ma nëbbu dara man tamit du ma ko nëbbu dara. mu mhm. doon àndu dëggu ànd boo xamee du xaalis du xaalis du dara àndu dëggu la wax mhm. ñu ne nit ki boo ànd nga ànd si dëgg te yàlla tax mhm. moro Zarko dëgg laa ànd ak moom si moom dëgg laa ànd ak moom te yàlla tax fayuma joxuma dërëm lépp lu ma am mu ngi koy bokk ak man man tamit lépp lu ma am maa doomu aadama yi foofu laa bëgg na ñëw parce que dañuy dégg des fois day am combat nga ànd ak booy def ngeen def seen répétition. Mhm. suur làmb jot ngeen dem esaat. Mhm. ngeen bàq tëgg ay tëgg ba pare mhm. léegi booy yi dañuy toog des fois ci yenn booy yi nga xamante ni jot naa leen a dékk sama micro ñu ne ma Samba maanaam du fay naar bi xoromam Zarko buy bëree da ñëw tëggale ko ba ba tooy te soo paree Samba du la jox dara ñi ne Samba Zarko da ko jox xaalis muy def xaalis bi ci poosam ñi ne Zarko du ko fay waa sa diggante digga loolu noonu dama li sawar wax moo tax toujours rek loolu wax boobu ngay wax nii dégg naa ko ba sonn mais après ñoom ñëpp ñoom ñoo gisal seen bopp ñoo teg ñoo gisal seen bopp ñoom ñëpp laa jël da leen kaa leen yóbbu leen ba gaale Zarko Zarko toog Zarko magum jëmb la magum jëmb la am lu mu dee am na jabar am na doom kon dëgg dëgg moo ko war. Mhm. ma woo ñëpp ñu toog ma ne leen Zarko yi nii toog yéen a ngi nii toog Zarko ma ne ko yow da nga ma mës da nga mës a fay ma mhm. mu ne am mu ne ma ku wax loolu ko ah maa ngi dégg ñu ne booy ñeene may dag may fay hmm. Zarko saa yu bëree barki Seydina Muhammad saa yu bëree ba pare billaay wallaay du ma taxaw bundu këram sa di ko laaj xaalis billaay wallaay nee naa man Zarko su waree bëree man su ma ay million dama ko siy def parce que sekk ko sekk nañ ko moo tax toujours la laay wax géwél yi boo leen ànd ni nit ngeen ak moom si dëgg te yàlla tax. mais booy xamuñu ba nga jiital xaalis. mais ñoom xamuñu loolu. non mais léegi dama leen koy xamal quoi. Hmm. parce que suñu defal nii yëpp parce que man dama fay dama ko xaar dama fay toog xaar ko parce que toppee ma ko xaalis bu amee ay millions yàlla suñu borom moo ko ko may Zarko dama ko koy nangul su ma mayee ma jël su ma may du ma jël du ma ko toppee ngir xaalis parce que kon bu boobaa ànd bi du doon du doon dëggu kon àndu xaalis la nit ki képp képp képp ku nekkal ak ak mbër mbër képp ku nekk ak mbër dama bëgg ni mbër bi nga nekkal ngay ànd ak moom si dëgg te yàlla tax. parce que que parce que yow kese ànd ak moom man kese tëggoo man kese boo yow yow kese soo loon tëgg tëgg mi doon neex booy ne nañu dañuy ñëw tëgg ba seen yaram tàng mais le minimum sarko xanaa dina yëkkati benn trois cent mille sax teg ko ci table ne la sàmb yaag booy naan leen ci ataaya loolu force loolu force la sarko saa yi ma joxee ñoom ñëpp dama leen woone leen sarko jox na ma temps ñiy wax loolu dañoo dañuy fekk rek dañoo yor seen làmmiñ di wax rek mais man lu may def kenn du ma kenn du ma bàyyi sama booy yi may àndal lépp lu may def damay woo ñoom ñëpp ñu toog ma leen Zarko moo def lii moo génnee lii moo non damay wax damay wax loo xam ne moo nekk si man te ñoom te ñoom boo leen laajtee sax dañ leen koy wax Zarko lépp lu muy def damay woo ñëpp ñu toog ma leen Zarko yi nii yëkkati na lii jox nañu ko nee na ñu jàpp si combat bi léegi mujj bi Zarko xam la leen wax léegi ñuy wax Zarko pour ñu pour pour mu fay leen Zarko dañoo toog ñu ñëpp réunion mu ne leen bu nekkee ngeen bëgg ma fay leen ngeen wax amul problème mais xam naa ne Samba Suuna du wax ay waxu fay léegi yéen boo leen bëggee ma fay leen boo yëpp ne tekk tekkaaral kenn waxul kenn waxul parce que Zarko buy bëree du Zarko de Grand la du Samb Suuna Grand Yoff la kon ñëpp dañ si war a mën a génn jàpp si Pikine Ama Baldé buy bëree Xaali Mbay fa la nekk si Wally sek mhm. Ama Baldé buy bëree day bàyyi léppam day ñëw day jàpp si tëgg bi kenn du ko fay dërëm Bécaye Mbay du ko fay dara ñëpp ak ñeneen ak ñeneen ay ñoom Jibi Gueye ñeneen na ñeneen kon ñun waa Grand Yoff mbër buy bëree ñun géwél yi ñëpp si war a mën a jàpp te yàlla tax bu nekkee sax dañoo tëgg làmb ba mu jeex boo si amee sa benn 1000 francs am si sa benn 2500 nga xam ne lii lala la yàlla suñu borom jok nangu ko mais nañ bàyyi di jiital xaalis wala ji toog naan ay mbër lii ak lii ak lii fii ñoom ñëpp ñoom ñëpp ku si nekk yóbbu na ma làmb dem na tëggal ay ay booy fi fii naa ba pare kenn kenn séddu ma du ma si du ma ma si wax parce que Grand moo tax ma dem de booy taxu ñu ma dem de Garaaf moo tax ma dem ak kii di tëgal mbër bi moo tax ma dem bu nekkee xaalis rek maa ngi sant yàlla maa ngi baax maa ngi koy yëg naaj kay bilaay <laughs> ah waaw bu <laughs> ah, waaw waaw kon kon gars yi nga xamante ne yéen a ngi wax. Ah. pour beneen yoon tamit. Mm-hmm. li ngeen di wax danañ ko teg ci lu leer. Mm-hmm. Samba Sarko buy bëre da koy tëggal Sarko du ko fay ñii di wax ne Sarko mu ngi koy fay day jël xaalis bi di def ci mm-hmm. posam Samba mu ngi ni leeral na question boobu. Ah. léegi kon dañuy jàllaat Zarko sax moom si boobam Zarko si jëm boobam sax leeral na ko moom moom woo nañ ñoom ñëpp ñu toog mu ne leen ba xam man Samba Suuna musuma ko fay mu ngi nii musuma ko yëgat ne ko lii ak lii su ma koy su ma di jox xaalis sax dama naan ko eh war boo yëpp ñu ñëw te dëgg la damay woo boo yëpp ñu ñëw booy koo si woo ñoom ñëpp muy ñoom nongook ñoom jilaane ñoom ñëpp booy yëpp ñëw booy Arafat yeeg ñëpp ay toog saaru ñoom Zarko Zarko ne leen génne naa temps lii laa teg si table bi bu ñu paree day naan lii laa jël lii laa joxe pour ngeen forcer ay sabar bu ñu paree booy yi ngi jéggi ne moom si génne temps pour ku ne si ku nekk jël si bu dee cinq mille sax wala deux mille cinq cent sax ko si mm-hmm. dama koy génne jox leen mm-hmm. ñi dem mm-hmm. waaw ma répété bu jotee du ma xaar kenn damay ñu ma war a woo damay woo ñëpp parce que affaire grave la du ma boo kii bàyyi kii nii man su may def su may def open press wala dara ñëpp laay woo ne ñëpp ñëw parce que grave la boo dëkkee grave da ngay deretu grave da nga war di sot da nga sot ñun grave yi ñoo ko war a mën a changer yi ñoo ko war a mën a changer bàyyi xaalis bi géwél boo gis ay waxu xaalis lay xuloo waxu xaalis waxu xaalis xaalis mais ay waay. waaw mais tëggkat yi yéen a ko war a changé. Ah, mais mais mais mais mais mais mais mais Sarko. Euh, mais man non euh, euh, mais ma xamal dara man man man déggoo. waaw tëggkat yëpp samay xarit lañu grand yaf ku si xewle ñëwal naa la ku si xewle su ma ñëwul yëkkati naa jox la amul ku ne musuma la teral amul géwél bu ne sàmm suuna musuma may xaalis parce que Seydina Muhammad te lu ñu def mun naa ko de dem tëgg sabar taxaw nii waxal nit ñi may ma xaalis mun naa ko su ma neexee soirée yi may may dem nii su ma neexee ñëw jël sabar tëgg waayaan ñi may ma xaalis mais duma ko def. Mm-hmm. damay ñëw ñu way ma mu yëge sama xaalis maye. Mm-hmm. après pare dem dem ñibbi. Mm-hmm. man soirée su ma jël nit sax su ma paree du ma xaal kase damay ñibbi taluma ko damay ñibbi. parce dama ñëw pour bégal sama yaram. waaw ndax grand quoi moo tax. loolu yow xam nga loolu si man sax yow kenn du la wax sax yow gis nga. Mm. damay ñëw tooyal sama xol waaw pour sama mbégteeg sama. man maa ngi dem esaat maa ngi dugg si ñëpp xamee ndax àdduna ñëpp xamee ne Samba Soulou ñëw na mm. moom mën na bés bu mag man bés yooyu laa mën man nee naa la Zarko bu baax bu baax bëri léegi léegi parce que Serigne Touba damay bàyyi tëgg làmb bu baax léegi keroog ba may def émission rek wax naa ko bu baax bëre damay bàyyi tëgg làmb parce que Serigne moom moo tax may tëgg làmb mais bu nekkoon moo moom rek du ma tëgg làmb parce que Serigne a ah moom moo la dugal ci làmb. moom moo ma dugal si làmb dégg nga su ma demee ba ñëpp di jëpp ñëpp xam ma nee naa la Zarko moo ma njëkk a yóbbu 2S ba kaay mbay jël ma kay bu bàyyi damay bàyyi <laughs> bu bàyyi damay bàyyi man àndu dëggu laay àndu de mm-hmm. bu bàyyi damay bàyyi